cher internaute Equivox TV se politique ñëwaat di dalal kilifa goo xamante ni dafa am lu ko metti euh, ci ni justice suñu réew di doxee am lu dox ci diggante bi ak kilifa gu ñuy woowee Tahirou Sarr euh, laataan caa yegg si dañ koy bàyyi mu wax ñu turam ak santam ginnaaw bi ñu ko nuyoo kilifa gi ñu ngi lay nuyu. man maa ngi waa ñu ngi lay ñu leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm di gis seen liggéey ci dëkk bi euh, di nuyu xalifa murid di nuyu ñëpp ñi nga xëye ni ci senegal di ñu déglu. tur ak sant bi. maa ngi tudd El Hadj Pape Seydou Samb dëkk 36 rue Sandiniéry ah di ñëw fii nag di wax sama naxar ak li nga xam ne nii vraiment dund naa ko. mooy. li ma dund mooy dama def ci tribunal bi vingt ans man ak Tahirou Sarr. Tahirou Sarr. Tahirou Sarr ñëpp xam nañu ko ci dëkk bi ndax dama yaakaar ne. soo jotee ay nit vingt ans ñu lay topp ci tribunal yi ba am dëgg dëgg googu war nañ koo wone war nañu wone ne vraiment kat kii moo am dëgg ñu yemale ñu mais bu ñu jël ñi am doole di joggate ñi nga xam ne nii dañu amuñu doole loolu rafetul ci dëkk Tahirou Sarr sama yaay daf ko loué magasin. mooy coow li ci li ñuy ñëw nii. mooy coow li ci li ñuy ñëw Tahirou Sarr. jour bi ñu denc sama yaay mi ngi taxaw ci tur ci ci biir bàmm ci ci ci biir armée bi loolu war na ko yee mu jël magasin bi suuluwee ko laaj neuf millions lekk. moom Tahirou Sarr jox moom Tahirou Sarr jox magasin bi pharmacie. bi ma jógee voyage ma ñëwul foo bàyyi woon Chicago Sport nga ñëw fekk fa ñu def fa insigne pharmacie dana la jaaxal ci sa kër foo juddoo ma ñëw laaj. ñu woo ndaw si muy bu Seynabou Diouf Teraminute mu ñëwee ma ne ko yow kan moo la jox fii mu ne ma Tayrou saar moo ma ko jox ma woo Tayrou Sarr téléphone Tayrou Sarr fekk ma foofu ñu dugg ci oto bi ma ne ko yow Tayrou <laughs> mais kii nan la def ba jot ci magasin bi mu ne ma dama associé ak moom pour liggéey ak moom ma ne ko Tayrou Sarr man booy plateau la Tayrou Sarr yow jàngoo. nan nga mën a associer ku xëy dafa jàng ba am ay diplôme pharmacien am loolu mënul nekk ndax man gëwma loolu da nga suuluwee magasin bi bon muy dugal ak man nag ci ay affaire pour xam nga jënd maag yooyu man mënuma jënd. ah waaw ndax mënuma jënd sama alal munu ko. lu mu doon jéem lu mu doon jéem luy firndeel jënd boobu. waaw ndax xam nga nit boo ko ci li mu gën a bëgg. boo ko ci woowee te man xam na ne chauffeur camion laa ñëpp ma xam mu di ma wax ne ma dama may jëndal camion ma ne ko man Tahirou Sarr soxlawuma camion ci biir otoom bu toogee toy nii ma wax ko soxlawuma loolu man duma lekk sama yàpp yaram man samay rakk laa ko bokkal kon mënoo ma jënd sama alal ma def so ma saisir procureur mu defal ma soit transmis ma dem yóbbul ma ko police plateau ma woo ñu woo ko commissaire bi woo ko téléphone mu ne ko maa ngi ci yoonu mbuur bi ah mu ne ma mi ci yoonu mbuur bi bu subaa dina ñëw ñu toog deux jours ñëwul commissaire bi yebal alkaati dana agent mu dem jëli ko bi mu ko jëli jee mu ñëw mais li mu jëkk a wax commissaire mooy kii dem nañ cour cassation ba ma dóor ko te wóor na yàlla musuñu àgg cour cassation kon kooku su taxawee commissaire bu xam ne nii asramante bu mel noonu mu koy wax lu dul dëgg man ma tontu ko ne ko nag léegi comme que da nga maa dóor cour cassation ordonnance ya nga ma dóoree cour cassation da nga koy génne commissaire bi na ko ana kayit yooyu mu ne ko mi ngi sama kër ci lañ ko gëj a gise ba jusqu'à présent fi may wax ak yow. ah oui. waaye depuis vingt ans li ngay wax depuis vingt ans mu dama dawloo dañu dawloo ba lii suma sœur gaañu na ci. doomam gaañu ci ndax ñàkk lu ñu leen fajee Tahirou Sarr nekk ci dëkk bi di maye ay milliards ak ay millions yoreel ñu suñu alal ñu ñuy jirim suñu papa dee suñu yaay dee dama koy ñaan ngir jëmmi Rasulullah xeexuñu xulowuñu condamnation bi euh, ñaata la wax ni moom la ci wàllu amande bon ndax suma avocat moo laaj loolu. ñaata. dafa ne normalement kii war nañ ko dédouaner war nañ ko dédommager vingt millions. mais kuy wax waxi vingt millions mais tribunal àtte trente cinq millions waaye sa waay nañu waxante dëgg dëkk bi am na yoon. maanaam exécuté wu ñu. exécuté wu ñu lañu war a def. ba pare mooy ñaanal appel. gis nga ci dossier boobu dem nañ ba condamné na ko ci. oui ne ko yow waratoo taxaw ci kanamu procureur sax di benn di wax ay waxi àtte. àtte nañ la ba pare. yow lii nga ko journaliste nga. waaw dëkk bi fan lañ ne ñun Sénégal lañ ne. gëm sama justice su dëkk moo taxoon ma topp ko. dafa lànk ne du fay wala. lànk ne du fay di dugal loxoom fu ne. maanaam. ah maanaam ah mais. ku la ëpp doole nga topp ci vingt ans di daw war nga xam qu'est-ce que ça passe. lan moo lan nga ah, njort. noo man sama njort ñaaw na ba ma toppee gëm sama justice su dëkk topp ko vingt ans ci tribunal bi te fu ma dem may am dëgg te mënuma am gain de cause. mais ñun ne ci dëkk bi nañu wax dëgg Sénégal gi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm yéen ñëpp attel leen ma man ak kii ngeen xool li ci dëgg gagné na ci sama kër cent deux millions ci bénéfice lekk ko bàyyi ay jirim vingt ans nga topp leen di leen lekk waaye ngir yàlla ak yonent bi yéen yéen yéen yéen ñi ngi xay yéen ay autorité ngeen nekk ci dëkk bi wax leen ci lii. an sa avocat ci loolu yëpp. sama awokaa mi ngi fi. Mamadou Ali Kane. maître Ali Kane. moom maître Ali hmm. lu ci position am. Ah, ci position ah pour man de xam nga nit moom. am na xam ne doo ci dugg depuis vingt ans moom Moussa hmm. ndax xam nga wax ji dafa doy waar. te booy wax wax ji dafa doy waar wax ji lépp dafa doy waar. ndax baax na ñu xam baax na ñu xam de ak lu mu doy waar doy waar. baax na ñu xam am solo. lan la lu doy waar foofu lan la lan la. waaw li gën a doy waar gën a doy waar mooy. Tahirou Sarr su demee bay taxaw di di wax ci commi taxaw nga wax lu nekkul loolu doy na waar vraiment doy na sa avocat dans tout ça. bon sama avocat parce que maa ngi lay laaj maître Ali Kane nga ne ma waaw waaw. waaw mi ngi liggéey ah waaw ngi ciy liggéey ndax ndax li muy liggéey ndax moom dossier bi moo ko mujjee yor. Hmm. waaw dossier bi jaar na sax ci loxo Jacques Bodin. Jacques Bodin jour bi muy mi ngi ci dëgg maa ngi ci fen du ma ko waxal lu xëy nekkul ndax man jullit laa billaahi wallaahi taala daf ma woo ba ma ñëw mu ne ma ñu ngi may yónnee ay kayitu riz de dene te yi ñu may yónnee du riz sànniñëri waaw moom moo mujjee nekk mais justice bi su fekkee leen di jéem a réeral <laughs> war a yónnee kayit yi di yónnee ay kayitu <laughs> mais loolu day na waar loolu loolu nan lañ ko mën a. te loolu sa avocat lu mu xam la. maître Ali. non maître maître avant muy jot ci dossier bi loolu am na mais su ne nii li may liggéey. Hmm. man mënu ma ci dara ndax vraiment bon maa ngi gis mu ngi liggéey te nit. <laughs> mais dafa mel ne am na lu dalul sa xel ci liggéey boobu wala. parce que aussi ah, am nga avocat. laye nañu laye nañu daan nga. waaw waaye ba léegi exécuté ñu. waaw ndax normalement lu tax man sama xel di tey toujours. Hmm. Euh, mooy. su ma tribunal ate ba ne trente cinq millions mais nañ ma wax fan lañ ko teg war naa ko xam. laaj nga ko avocat ah mais laaj mais laaj nañ ko ko. mu ne mu ne mu ne bon jël leen lii moo gën ngeen di kii ma ne ko non sama grand frère ne ma dem naa fa nee na alors bàyyi kii ma ne ko non duñ ko bàyyi ndax kooku mi ngi man maa fi ne. vingt ans man maay daw ci tribunal ci di daw di dem di ñëw dama bëgg daal dama bëgg réew mi atte ma ak Tahirou Sarr mu teg loxoom ci alalu lébu yi. da nga njorti ne avocat bi dafa am lu mu seq ak Tahirou Sarr. non waxuma ko. dañu jegeento dañu bokk famille wala. ah waaw non xam itam nit du wax lu ko leerul vraiment. dama bëgg man toujours lu may wax parce que lu mel noonu war junjoon nga ko moo tax ma la koy laaj. junjoon nga lu mel noonu maanaam seen. proximité ci wàllu waaw la woon. xam naa ne avocat am la woon ban délai ko jox ngir mu fay la fay la délai da koo dépassé. dépassé na délai bi dépassé na ko day def lu ko neex ndax bu nguur attee ni lii te moom waratul sax dem ndax atte moom dafa ne yóbbu na ma cour cassation ba gañe wax ko ci kanamu commissaire te loolu du dëgg nga mën a taxaw ci kilifa gu toll nii ngay wax la nga xam ne ni yow loolu amul waaye sa waay li doy Sénégal gi doy léegi lan ngeen nar a def bu fekkee ni taxawaay amu ci dëgg fayu leen lu leen finalement ngeen di def lan ngeen xalaat waa man li ma xalaat mooy duma ko bàyyi ba suuf si jeex ndax sunu alal la ñun xëccoo moom alalu yaayam moom moo ñëw Dakar di xëccoo ñun suñu alalu yaay ba pare wane ci lu xam ne nii ndax ba muy ñëw suñu kër yorul dërëm ba muy ñëw sunu kër yorul ñaar dërëm kon waroon naa am ngor gu toll ni ñii kat seq naa ñoom seen yaay lu xam ne nii lu rafet la naa jëflanteeg moom jëflanteeg ñoom jëflante yu rafet. defu ko dañu jaay doole dañu ping pong comme bal ci biir tribunal bi loolu dafay jeex te maa ngi lancé appel ñëpp di lancé appel nag ministre de la justice mu ubbi ci bëtam xool ko ndax mënuma ko nekkal ci naaju mun na ci kër gi tegu ko ci bakkaram bi sama bakkan man laa ci teg waa di nuyu ñëpp nag di gërëm ñépp di sant ñëpp waaw di nuyu au passage sama grand bu baax di ko nuyu muy mbaykan loo maa ngi dox di ko di ko ñaan mu dox sama diggante ak moom. ñu jeexaleeg fenn sandinière bi nga tudd dañ fay dégg ay bâtiment yuy daanoo nangam est-ce que ci fiñ ci toll nii euh, loolu mën nañ ko njort fa ngeen ne wala. mais loolu dafa am ñu ngi seetaan loo xam ne ni ëllëg bu amee. Hmm. ba dal ci kaw ñi nga xam ne ni ay étranger lañ. pël Fuuta yi. pël Fuuta yi dina metti mooy. kër gi baas lañ lal ca kaw ci biir ba fa duggee ay été lañ jël téye ko dal bi mooy fi ñuy jaayee pomme orange frigo bi. Hmm. tabax bi ëpp na cent ans waxuñu leen ne dañ leen di génne ñu dem mais nañu génne ñu defar kër gi toj ko daana ko ndax dana daana ci ko pël Fuuta dana daanu seen kaw tam bu daanu seen kaw loolu ñoom gouvernement bi waruñu ko seetaan bind naa préfet nag man El Hadj Pape Seydou Samb yóbbul ko préfet dañu dégagé nañ suñ responsabilité ci kër googu bind yóbbu mairie ne dégagé nañ suñ responsabilité ci kër gi bés bu daanoo ci pël Fuuta yi ñoom la ndax ñu tam mënuñu gis lii ay tabax yu am cent ans ñu bàyyi ko rek ci dëkk bi muy muy nekk foofu di daanu ci kaw nit ñi nit ñuy faatu lii moom war nañ ci jóg war nañ ci jóg. ñu ngi lay gërëm di la sant. ñu ngi lay gërëm di la sant may gërëm sama sëriñ bu baax bi waaw ah, di ko di di di di di ko ñaanal ñu ci li ñu nekk muy Sëriñ Abdou Karim Mbàkke di ko ziar bu baax waaw di ziar kul murid nag di ziar sama xarit yépp waaw di ziar nag ki nga xam ne nii mooy xalifa murid yi waaw ndax man Baay Faal laa waa kër Sëriñ Abdou Karim laa